mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw nuyoo bi maa ngi leen di ziyaara bu baax ci bis bu tedd bi di bisu aljuma di ñaan sunu boroom subhaanahu wa mu defal nu ngëneelam ak ndimbalam ginnaaw loolu suñu waxtaanu tey dafa jëm ci lu am solo mu di jàng ak yar xam-xam jàng ak yaru wàccuwaay bi nga xam ne moom la am ci yoonu sëriñ bi xam nañu ne lislaam di ko tax a jóg mooy xamal doomu aadama ak yar ko ndax niteel ko ak texeel ko nit ki balaa mën a nite bay def yëfi nit di def jëf ju mat day am day xam la mu war a xam waaye dañ koy yar itam ba mu mel na mu war a mel su boobaa lépp li ñu yaakaar ci moom ci njariñi àdduna dana ko mën a taxawe muy njariñ lu jëm ci boppam muy lu jëm ci keneen li nga xam ne it moo tax yàlla sàkk ko muy jaamu ko dana ko fi mën a nekke waaye buñ jàngalut nit yareesu ko mbaa ñu jàngal ko te yaruñu ko mbaa ñu yar ko te jàngaluñ ko lu ci rëq rek dana rëq ci aw doxinam ci digganteem ak boroomam mbaa ci digganteem ak moroomam loolu moo tax sëriñ bi jàng ak yar la boole def ko muy jumtukaay bi nga xam ne moom la doon liggéeyale boroomam ndigal li nga xam ne moom la jotoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu koy jotli ndigalul yàlla ngir mu liggéeyal suñu borom ci jaam ñi da ko wax ne ko nanga jàngal sa taalibe yi ñi ñi aju ci yow na nga leen jàngal te yar leen am na foo xam ne dañuy wax ne dafa wax dañ ko wax ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat wa amil kulla shaxsin bi ma yaliqu bi yaral sa taalibe yi ci itte ju kawe te bu bul yem ci jàngal leen rek te kenn ku nekk na nga jëflanteeg moom ca yàlla ca moom kon foofu baatu yar lañ fi jëfandikoo waaye moom ci boppam nag li mu bindal boppam ci waxal ko boppam ci xalimaam wax ne loolu la bi sallallahu alayhi dafa wax ne wa min ajaib ibni abdillahi salla alayhi bi salaamillahi baaqin adaa ardahu bil awliya ila alqiyamati wa kullun waliya sunnatahu wa saanaha an bidaai tabshiruhu bi fasdaai amarahu sala alayhi llaahu bil aali wa saxbi walaahu bi an yuallima almuridina wa man yaqbalu minhu nusxa min ahli zaman nee na bokk ci kawtee fi yonent bi sallallahu alayhi wa feeñu gim feeñu xaadimul rasul jot li ko ndigalu yàlla ne ko fasta bi ma tuumar li la yàlla diggal te mooy nga woo jaam ñi eh, ñu làqu ci yow nga wambat leen jëme ci seen borom te xel leen nanga yëkkati woote boobu ca kaw ba ñëpp dëkk bu ko bu ko bu ko xuumtoo na nga ko wax ca kaw yëgaleel ñëpp ne yow la yàlla yebal nga doon kii war a xetti jàmm na la ñëpp wuy si mu ne mu ne digal na ko mu jàngal mbooleem ñi aji ci moom ñëpp ak bépp jullit bu nangu mu jàngal la nee jox jot na ndigal ci jàngal leen kon baatu jàngal la wax foofu bi an yuallima waaye muridiina ji mu wax itam muy taalibe yi moom itam la lañ jaayanteeg moom mooy bàyyee seen bopp ngir mu defar leen yar leen kon jàngale ak yar la jëloon def ko muy jumtukaay bi mu doon defare nit ñi daf fekkoon nag ñuy jàng rek njàngum kese mu ànd ak yar loola taxoon na nit daana jàng ba nu lef te jikkoom du rafet ay tegginam du mat yitteem ji ci ëpp ci àdduna la koy jëmale bëgg am àdduna dana ko jaral jaay diineem wala ngorom wala leneen lu lu jafe ci moom ngir jot ci àdduna di ànd ak niti àdduna yi di jaxasoo ñoom di bokk ak ñoom lañuy def te lu ca bari doon lu jaadu loolu lépp ay nit ñu jàngoon daanañu ko def rawatina ña nga xam ne ñoom jànguñu woon nga xam ne ñoom ci réer lañ nekkoon bu fekkee ña xamoon a meloon ci amoon ñu mel noonu kon ña jàngul woon euh, seeni wax du wax ñoo gën a doy waar mu ñëw na ngir soppi jamono ji defaraat nit ñi mu indi jàngale jàngale moom mu jubbantiwaat ko tegaat ko ci weneen yoon boole ca nag lu ci bokk lu ñu sàggane woon te loola moo di yar euh, kon jàng ak yar la wax ne moom mooy li am solo mooy tax a mat jàng ak jëf ak yar waalam bi ann al ilma wal amala ka adabin tuksibuka al kamala man lam yaxuz min haadihi shay'an wa lam yuxibahu fa innahu nafsa zalam nee na képp koo xam ne amoo jàngoo yaruwoo nanguwoo jëf nee na kooke euh, ku ca ku ko deful ku ku boolewul yëpp te amu wala amu ca lenn nee na kooke tooñ na boppam ku ko boole rek moo kooku mooy ki nga xam ne moo moo mat mu nekkoon koo xam ne ko jàng da ko yitteeloon wax na ne ba mu xàmmee loxo ndeyjooram ak càmmoñam la ko xam-xam bi ëpp solo yitteel te muy xam sunu boroom pexe moom jàpp na bu ko defee xam suñu borom mu def ko mu de muy seeti boroom xam-xam yi di seeti nit yàlla yi yi yoon ci jamonoom ngir bëgg ñu xamal ko boromam ba mu demee ba xam ne lam ca soxla ñooñu yoruñ ca lu ko mate la ko yàlla booleeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko mu nekk mu def ko mu nekk wasilaam mu womat ko mu yegg ci boromam. walam azal mundu aqaltu taaliba maarifatan billahi jalla taiba fa jultu bayna al ulama walawliya bi niyati wa amali wa qawliya kay la yadia umri ataaba li xusni zannin qaada lihtisaaba xata wasaltu ama ay sashin ila xidmati xayri lxalqi saaxibil ila kon xam boroomam da ko yitteel da ko tàmbalee yitteel ba mu tam ba mu xàmmee mu wax ne loolu moo tax itam ba nga xamee ne sàkku xam-xamu zaahir jot na ci moom mu def itam jëpp ci sàkku xam-xam Cheikh Mouhamadul Bachir wax na ne radiyallahu anhu sëriñ bi ba muy toll ci jàng itte jam ci amoon ak farlu woon na dayoo kenn daaw ko gis te nekkul yorub téere wala mu taxook àlluwa wala jumtukaayu njàng itam jëpp ci la ko jëmale woon farlu ci lool nee sëriñ bi daanako wax ne ko moom ba muy jàng nam farla woon ci njàm ci ci njàng amul kenn ku ko ci jegewoon ca ñu doon jàngandool ku dul kenn ku ñuy wax Balla Maam ture waaye nee na kooka moom farlu na lool ci njàng mi waaye dama ko xawoon a raw ci wàllu sàmm waaw mu bëggoon lool ay téere amub téere daana ko jaral lu ne ay xissa yu bari ñu ngi koy nettali yu wér diggante digganteem ak téere nu muy def ba amub téere bu mu bëgg te amul kàttanu man ko wàcc ku ci jamono lam ca daa daj ci amul téere ay xisa yu bari dikk na ci ngir bëgg téere bëggoon loolu boroom xam-xam fu mu gis boroom xam-xam jege ko lu mu am jox ko ngir lam yor ci xam-xam mu mën caa jot bu ca jotee it mu mën a barkeel kon noonu la farloo ci sàkku xam-xam ba géeju ci xam-xamu zaahir ba yàlla nag ubbil ko yeneen bunti xam-xam yoo xam ne jógewul ci mu njàng wahabanil wahaabu ilman lam yakun mina taallumi waqaadahu bikun mu ne yàlla mii maye maye na ma xam-xam boo xam ne jógewul ci njàng mi ma ko maye ci kun ci coobareem ci kàttanam ak coobareem ci la ma ko maye waaye na xam-xam ba ñuy sàkku moom sàkku na ko ci anam goo xam ne eh, Cheikh Mouhamadul Lamine Diop Dagana wax na ne sëriñ bi de am na mayug yàlla Eh, waaye nag farlu moom ci sàkku xam-xam ak sonn ca lool lool ak jox ko àqam defoon na ko ba ku ko gis ba ku xam ay jaay na nga xam ne kii moom lu mu am ci xam-xam rek yeyoo na ko ci farlu ak coono ba mu noppeekoon ci loolu loolu kon yitteel gu ko xam yitteel moo tax mu daj loola lépp ci sàkku xam ak bëggi téere ak fonk boroom xam-xam yi ba bi mu noppee itam mu daal jublu ci xamle jàngale bu ci yoonu jàngale ak taalif tàmbali naa jàngale ak taalif ci nekku sëriñ Mor Anta Sali ba mujj daanaka daara ja mu féete féetewoo ko daara xam-xam ja sëriñ ñu ëppoon ca dongo ya mujjoon moo leen daan jàngal bari na ci ñoo xam ne mu jàngal leen moo leen gënaloon mu tàmbali ci jot jamono di taalif téere yi nga xam daanañ ko jàng te mu desee woon a leer mbaa mu tënku woon ba ëpp daana taalifaat téere yooye ngir mu gën a yomba jàng ba bi ko boroomam joxe ndigal nag ci defar jamono mu fab yar boole ca moog jàng ñu ànd mu daldi fab nag jàng ak jàngale ak yar def ko mu yitteem yoo xam ne e, ca la jëmale ab kon jàng ak jàngale la ko boroomam digal ndigal li jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jottali ko ko te jëfe na ko ca nam gën a mate ci la digal taalibe yépp ne képp koo xam ne ku ko yaakaar la muy góor muy jigéen digal na ko mu jàng lépp li yàlla farataal ci moom ci ay pas-pas ak i jëf yoo xam ne ay faratay eh, jëmm la ci nit ki eh, mu ne digg warlu naa ne li ngeen soxla lépp ci lu ngeen war a xam ci lu yàlla farataal ci yéen danaa leen ko taalifal ci ay téere jox leen ko téere yooyu nag na mu ko na defee na ko noonu taalif nay téere yu mat sëkk yoo xam ne képp ku bëgg a xam sunu boroom ci wàllu tawxiid ci wàllu wéetal ko la nga ci yitteel yépp danga ko ci la la la ci mënta ñàkk da ko ci fekk ku bëgg a xam nooy jaamoo sunu boroom farata yépp leeral na ko ku bëgg xam yoon woy jaar itam ba mën a defaru nekk nit mat sëkk ci jikko ak yar teg teggin ak ak i jëf ak i wax mooy leeral na ay téere ci tasawuf yuy wane yoon woowee joxe ndigal ñëpp ci ne nañ ñëpp maase ci jàng bu ñu delloo ci ay mbindam dañuy fekk muy yitteel lool muy muy muy wàllu jàng woon ndaw ñëpp ne nañ jublu ñoom ñëpp ci jàngi euh, te jàng rek te yàlla rek tax fa saari on lil almi mus'inina li wàcci zil jalaali qaasidina mu wax nañ képp koo xam ne mu ngi leen di woyofalal njàng mbaa mu koy gàllankoor mbaa mu koy tere mbaa mu koy sobental kookee ku réer la te la muy woote it bidaa woote du diine ndax képp kuy jëf te la ngay jëf tegoo ko ci xam jëf ji du man a baax wa man nahaakumu an taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami is kullu man fi zamani manaa min a taallumi fa innahu daa li bidaatin shaniatin idil amal in lam yakun bil ilmi shaabahu xalal mu ne képp koo xam ne mu ne bokk na ci pexe yi seytaane yi def ba gàllankoor ñi jëm ci yàlla di ay murit dox seen digganteeg jox yitte njàng yitte ji ñu ko war a jox wa min makaidil ayni ayda axzaahu baaqin li yudim fayda saddul muridina an taallumi li wàcc rabbinal alimil alami mu ne bokk na ci pexe yi seytaan def ngir gàllankoor ñi jëm ci yàlla bañ ñu yegg dox seen digganteeg sàkku xam-xam mu ne képp ku jàpp ne mën ngaa ñàkk jàng mën ngaa bañ a xam say farata mën ngaa bañ a xam say sunna te du tee sa mbir yépp baax bu ëllëgee la nga bëgg nga am ko ne ku yaakaar loolu kookee ku réer la te ku ko topp mu réeral la fa kullu man dayaa ilman bi sunan wa bi faraida wa yartajil minan fa huwa zu dalali wal idrali jazaahu intiqaamu zil jalali mu ne képp koo xam ne mi gàllankoor nit ñi cim njàng ak leen ko teree ko woyofalal kookee moo wut seytaane ci kaw suuf lam bëggoon yàq lépp moo ko koy yàqal kookee nag ba boo mu dellu ginnaaw te bàyyi li muy def te xam ne bu dellu ginnaaw bu ëllëgee yàlla la koy diggaaleel te bu boobaa dana xam ne yoonam nekku ca wa man nahaakumu an taallumi fa huwa xalifatu laayini almujrimi fi kulli ma yufsiduhu wallahu jal xasibuhu yowmal jazaa'i wal wajal mu ne képp koo xam ne bañ ngaa am gàcce tey mbaa ak ëllëg lépp looy def na nga jiital ak xam na ngay jàng door a jëf yaa ayyuha shubbaanu in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal ne képp ku jog ne da ngay jaamu yàlla te jàngoo nee na kooke euh, ab dof la wa man tajarrada li taatil jalil qabla taallumin fa xumrun la nabil mu ne képp koo xam defoo sayti ci njàng defoo ko ci jaamu yàlla nee kooke bis bu faatoo dana xam ne yoonam nekku ca man faatahu al ilmu maa taati fa sawfa yaalamu la dal mamaati kon lii mu wax daal ci soññ nit ñi ci xam-xam ak ak euh, ak yar yaatu na lool lool sëriñ bi nag buy wax njàng xam-xam bu am njariñ moo ko tax di wax xam bu am njariñ mooy njàng muy jural nit ki njariñ xam-xam bu am njariñ nag moom nee na mooy boo xam ne nit ki da ko jàng te yàlla tax am nit ki bi mu jàng xam-xam yàlla rek tax muy jàng xam-xam xam na ne lii ndigal la lu yàlla digle yéwénug diineem ak àddunaam aju ci muy jëfe ndigalu yàlla loolu ngir yàlla kon xam-xam bu am njariñ foofu lay tàmbale ci yéene ja moom ki koy jàng da ko jàng ngir jëmmi yàlla taallamul ilma li wajhillaahi duunal munafasati wa tabaahi da ngeen jàng xam-xam ngir jëmm yàlla rek bu leen ci jublu rawanteeg seeni moroom bu leen ci jublu itam euh, puukare euh, la taqsidu istimaltal baraya lakum wala xawsakumul hadaya bu ci jublu am daraja ci kanam nit ñi ak wàccuwaay waaye bu leen ci jublu it am ci alal waaye na ci jublu ñeenti yëf fa taqsidu arbaatan inda ibtidaa taallumin li kay tafuuzu bil huda awaluha alxuruju min dalaali wa thani nafu xalqi zil jalaali saalisu al ixyaaw lil ulumi wa rabiu al amalu bil maalumi nee kuy sàkko xam-xam la nga war a njëkk a yéene mooy jàng ngir génn ci réer ndax réer moom musiba la jàng itam ngir li li ngay jëfe nga xam ko ngir ngir fas jëfe li ngay jàng jàng ngir jëfe nga xam-xam itam balaa am njariñ dañ koy jëfe xam-xam bu ñu jëfewut daanaka amut benn njariñ mi ngi mel ne garab gu amul ñett moo tax mu waxoon ne wal ilmu afdalu axi min al amal wa ussuhu fa faaza man lahu xasal na لكنما النفع لكنما ثمره كالنفع في عمل bi فكن ذا الجمع nee na bu ñu tegee xam teg jëf xam a gën jëf ki xam tey nelaw moo gën kay jëf te xamut ki nga xam ne dafa xam ba noppi mi ngi tëddi nelaw jëfut moo gën kay jëf moom te xamut nawmul aalimi afdalu min ibadatil jaahil ndax kii nelaw ki xam tey nelaw saa bu yewoo dana def lam xam te bu defee dana jub kii jëf te xamul nag li muy jëf moom dara du ci baax mu ne kon bu ñu tegee xam ak jëf rek ci ñaari balance xam a gën jëf jëf ju anta ko xam xam gu xam xama ko gën mu ne nag waaye nag balaa xam a am jariñ dañ koy booleeg jëf kon na nga boo jëf xam-xam balaa am njariñ dañ koy jëf wa man xawaa ilman walaysa yamalu bihi fa innahu ximaarun yaxmilu ne ku am xam-xam te du ko jëfe moom mbaam mu safitéere ñooyam ab coono rek lay jële ca xam ga waaye du ca jëlee njariñ kon xam-xam bu añu dem njariñ mooy buñ jàng ngir jëmm yàlla waaye boo xam dañ koo jëfe ni ki li mu xam mu jëf ko te yàlla tax neen tam bokk na ci li nga war a yéene booy jàng nga fas yéene dundal xam-xam ndax xam dunduk xam-xam mooy dunduk diine moo yokkuteg aw xeet diine balaa taxaw xam day am nit ñi dañuy am xam-xam bu leer naññi te yaatu te mat diine doo a mën a taxaw waaye àdduna it balaa mën a jëm kanam xam a koy wommat ñi ëpp doole ci àdduna ñëpp mooy ñi gën a xam xam-xam bi aju ci luy doxal àdduna kon xam moom mooy taxal mooy jëmale kanam diine moo mooy jëmale kanam itam àdduna kon dundal xam-xam dafa am solo la ci toppil mooy nee mooy nga fas ci yéene jariñ jaami yàlla yi kon xam-xam bu am njariñ mooy buñ jàng ngir jëmmi yàlla waaye jëfe ko teg ca waaye ñetteel ba it ki ko jàng na ko xam-xam bi jural yar ak teggiin ak jikko ju rafet yar ak teggiin boobu nag war nañ cee taxawaat bu baax a baax a baax te xam na li taxoon sëriñ bi ci dëkk bi mooy jàngal ñi ak yar leen léegi nag ñu ngi tàmbalee gis loo xam ne xamuye su ko fu woon mooy ay nit ñu ñàkk kilifa euh, lu ñu xalaat wax ko nam leen nañ ko xalaate di dox di euh, wane di def yoo xam ne daal miine su ko woon ci ci ci dëkk bii loolu it bokkul ci biar bokkul ci teggin képp koo xam ne yaa ko yaa koy def te amoo kilifa xamal ne li ngay def moom mi nga wut ak barab bi bu dee ko am kilifa yi kilifa ga war na caa wax ñu fexe ba gën a tënkuwaat daal ci kilifteef gën a am yar gën a am teggin gën a dëppoog melaw dëkk bi ndax loolu mooy cere suñu njariñ nekk kon mel na ni waxtu wi dab nañu ñu ngi soñaat suñu bopp bu baax a baax jàng ak jàngale waaye ak yar ak teggiin ak dëppoog war may dëkk bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.